asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah mbokk yi nekk ci Urasul Irada ñu leen di nuyuwaat mbokk yi nekk ci Xum TV noonu mbokk yi nekk ci Ahlul Bayti TV noonu mbokk yi nekk ci TV Fàllu noonu mbokk yi nekk ci fépp fum mu mën a doon te dañu déglu ñu ngi leen di nuyu ci nuyub lislaam te moo di salaamualeykum wa rahmatullah ah, tey nag tanbiih ak irsaad bi ñuy def daa bokk ci nga xam ne mën nañ kaa dugal ci Ahlul mën nañ kaa dugal ci yenn TV Fallou mën ko dugal ci yeneen yi ndax jamono ju nekk buñ ci tolloo dafa am loo xam ne nit ñi dañ ko war di xam jamono yi weesu dégg ngeen fii ay gone ñu ne ca bitim réew di wax ay sikk yu ñu xam ne yi ñu yaakaar ne nekk na ci ay jëmm yu nekk fii ci biir réew mi xam nga lii yépp suñu bàyyi toor bi ñoom ñoo ko yenu ndax li tax ma ne toor bi ñoo ko yenu déggaguloo kenn ku bàyyam jàngal alxuraan ak diine mu bokk ci gone yi nga xam ne ñoo ngi waxeen waxin woowu ngeen di dégg gone yi di ko waxee ci bitim réew maanaam seen résultat wu liggéey bu ngeen fi liggéey yéen mag ñi résultat boobu mooy tàmbalee feeñ ña seen bàyyi jàngaloon diine ñoo ngi gar seen bakkan ci jàngal nit ñi diine ak yee leen waaye ña seen bàyyi jàngalutoon diine ñoo ngi gar seen bakkan ci lépp lu ñu xam ci ñaawteef ak mbon ak lu lu ñu mën a minimiser wa nit diine yi bañ bàyyi leen rek ñu ngi ci ndax nag kenn ku nekk la nga jàngoon moom ngay tari ña jàngoon diine ñoo ngi tari diine ña jàngoon àddina ñoo ngi bëgg a samp àddina bëgg a maasare àllaaxira waaye nag ma di leen xamal ne wax ji ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo ñi nga xam ne ñoo ngi ci bitim réew di wax wax ju ñaaw ci waa réew mi te waxuñu ko sax ci niti àddina yi waaye ci kër diine yi lañuy dugg di gëstu di loo ximbóot di seet loo xam ne moom lañ ci mën a génne pour man cee daaneel doomu aadama ma di leen xamal ne mbon ak jëkkër wàllut jabar mbon ak jabar wàllu jëkkër loolu dama bëgg ngeen mu leer leen naññ te bari waa nag koo xam ne da ngaa yaakaar ne jabaram jam yor ku bon la te fekk na yow yaa bon jikko waaye la ngay wax ca moom nekkul ci moom waaye su fekkonte ni mbon ak jëkkër day wàlle jabar kon firawna di yor asi di yor asiyat bintu mu nekk yàlla firawna weddi yàlla yëmu ca mu ne maay yàlla te ñoom ñaar bokkoon nañu nekk su fekkonte mbon ak jabar day wàllu jëkkër kon yonent yàlla lóot bu yàlla sa Sadduum daf ko cay boole ndax jabari lóot ca ñu bon ña la bokkoon su fekkoon te ni mbonu jabar day wàllu jëkkër kon yonent yàlla noo in boo waxee ne bi laa tasar alal di min al kaafiriin da dayaaran yàlla du ko wuyu te dina ko alak ndax jabaram ca ñu bon ña la bokkoon bu leen yaakaar ne yàq soxna yi nit ñu baax ñi dana tax nit ñu baax ñi yàqu bu leen yaakaar ne itam yàq jëkkëri soxna yi baax yi dana tax soxna yi baax yi yàqu kenn ku nekk yaamalu ala yi loolu moom nun weesu nanu foofu weesu nanu fa ngeen di jàppe jigéen yàq ko ba mu yàqu ba asaru léegi jëkkër ja yàquwaale ca ñun weesu nañu foofu weesu nañu itam fa ngeen di yàq jëkkër ba mu yàqu ba asaru jabar ja yàquwaale ca weesu nañu foofu amul ci sëriñ si ci Sénégal ku ci mën a am maqaamam nubuwatu sàkkantumaa ngay seen yonti yàlla euh, lóot lu tol ni wex lu tol ni sarran mënoo ko seen yàlla lóot te yonti yàlla lóot jabar ju bon la amoon te yàlla da ko alakaale te lóot mucc ak ña ko gëm kon képp ko fi gis ci réew mi muy kilifa diine jabar ja nekk ci njubadi na nga jàppe jabar ja jabari lóot te nga jàppe waaja lóot boo bëggee noppalu ndax loola moo lay tax a jàll képp ku ngeen fi gis ci kilifay diine yi ci réew mi mu yor jabar jabar ja nekk ku sàggan nekk ku bon itam na ngeen ko jàppee ni diggante noo in ak jabaram ngeen jàppe kilifa nga ni noo in ngeen jàppe jabar ja ni jabari noo in loolu moo leen di noppal képp ngeen fi gis mu nekk ci mbon nekk ci njubadi nekk ci ngaj te jabar ja nekk ci njub nekk ci jaamu yàlla na ngeen ko jàppe asiyatu bintu masaa masaim ak na loolu moo leen ciy génne waaye nag bépp galgal bu ngeen roof am nañu ab leqar ci bu ko mën a leqar ci bépp ndëgg sërëx bu ngeen gas am nañ dul deseer bu ko mën a maasale gépp ëkk bu ngeen samp am nañu bët yi ko mën a gis ak tànk yi ko mën a teggi waaye du tee ñun fa ñu jëm kenn mënuñu faa tëree jëm mënu leen ñëw dévier mënu leen ñëw dévier mënu leen ñëw dévier si boo ngeen noppalu mënu leen ñëw dévier c'est terminé ci sëñ Tuubaa ngeen attaqué woon lu ne ngeen di ko wax ci moom lu ne ngeen di ko wax ci moom la ngeen doon wax ci moom yëpp de ay feni kese te ñi ko doon wax ay nit a nekkoon fii ci biir réew mi ne ay nit yi diine la ñu ñuy wooteel yàlla di woo ay nit ñu jàngul diine ca bitim réew di leen influencer di jiima yàq seen tubaay ci deram loola munta nekk ndax ba wuuf ay kulbay ni nit ñu jàng la fi yi defe naa ne yàq nga ngeen ko doon jiima yàq ci wàllu biir këram day jeexal na tàkk tàkk tàkk te it ceere ne ni yéen xamuleen tus seenum njàng eggul fii gas ngeen xamut bu ngeen xamoon kon dina am yoo xam ne war ngeen koo mën a gëstu di ngeen war a xam ne sidna Usmaan ibnu Affaan takk na ñaari soxna yu yonent bi jur waaye wa an tajma'u baynal ukhtayn la yàlla tere te ñu fi doon kaatir kaatir yëpp di wax naan suñ tuwi def na ni dafay feni neen da nga xamu leen dara ba dara mbooloo jeex seen diplôme yi bu mu leen nax ay ilmu dikk du kasratu riwaaya waaye nuurul ma addiraaya la ndax bari na loo xam ne da gis nit yàlla def ko nga di ko critiquer te soo amoon nuurul ma addiraaya di nga xam la la cosaan la nga noppalu ci raxas leen seen làmmeñ yi ci nit yàlla yi su ngeen bëggee mucc ci àddina ngeen mucc ci àllaaxira yéen ñi leen di déglu it ngeen def attention ndax yàlla du denc fu dara nekkut yàlla du fa def dara te nag allahu moo gën a xam ay siyaj ar risalati yi yaa lu neex yàlla ma saa akaana wa ma lam lam yakun abadan la Sëriñ Tuubaa wax lu ngeen gis dafa soob yàlla lu ngeen gis dafa soob yàlla fu ngeen gisee mbon ànd ak mbaax ñaanal leen mbaax mu bëree ba daaneel mbon ba mbon wëlbatiku baax te mbaax war a bañ a sàggan ba mbon yóbbaliku waaye mbon ak mbaax yàgg na fee ànd ndax noo in nekkoon na fekk jabaram muy mbon ak mbaax nekkoon na fekk jabaram muy mbon ak mbaax firaw na nekkoon na fekk jabaram muy mbon ak mbaax taxut nag mataxal na ñi ngeen fii bonal dañoo bon déedéet ndax li ngeen di wax dara wóoru leen ci boolaa tax fu malayka laka bi yaa ilmun la yàlla wax ci alquran bàyyi leen toog ca bitim réew ay nit toog fii ci réew mi di yàq seen moroomi gor di leen yóbbu di leen ko sànni naa leen wax leen ci soxla diw nangam moo def nangam wala leen ci sëriñ diw nangam moo def nangam ndegam yow mi gis yow dong yaa sëñ te wax lu dul ni boo amee ñeenti ñetti moroom yu yu gise yu gis comme ni nga gisee waaye yow mi dégg ñu nettali la te ki lay nettali di gisut dafa foog ndax ngeen di sukkandiku ci loolu jox lu leen soob waaye nag yéen jarut yéen la zan ba baxdal kufri yéen jarut leen a waar fa takkir inna faati zikra te zikra kum yéen laa tanfaaw kon jaratu ko li ci topp itam qul asa sabili wad'u nit la ko yàlla sant mooy mu woote ci yoonu yàlla te bu muy woote mu am basira basira na xol koy def waaye ay bët duñ ko def laa taamal absar waaye taamal xulubu lati fi sudur nit ki bët yi di gumbo waaye xol bi ci biir dënnam mooy gumbo bari na nag ñi ñoo xam ne seeni bët ngi xool te seen xol yi dañoo gumbo ndegam laa taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliqi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ndegam Sëriñ Tuubaa mi ñu bokk yaakaar ñun murit yi xaasaa u te du ko def ba mukk waaye bu ko defoon duñ ko ci topp mooy Euh, bu ñu digaloon lu juyoog lu yàlla santaane dañ ko yóbbu fa di jikko te xam ne kii bopp bi am na lu ci nekk sàkkantumaa nag nituk àddina nit amul maqaama mu toll ni mu digle ay tere te duñ ko ko wax ne ko lii ngay digle ay tere la la taata li maxluqin fi masiyati alxaaliqi delloo leen seen bopp ci seen boroom te xam ne àddina jii ngeen di topp day jeex àddina ji ngeen di daw di ko dang-dangi day jeex gis naa ci internet bi mu kàllaf moo xam ne ca Mbàkke Bawal mi gisal ab anango bu bula waxuma tëgg bool waaye dafa jaaxaan di wala xaacu ak di wéqu xam nga ne loolu day bu ko sa doom gisee dina dina la xeeb lool dina xam ne yow ku ñàkk fayda nga du ma wax diw du wax diw ndax kon xëy na ay doomam danañ am gàcce waaye dafa am ku jóge woon ndakaaru xaw ma nekk ci dayre ñëw ci Sëñ Abdu Lahat ba mu ñëw Sëñ Abdu mu daal di nuyoo ba noppi jóg daal di fecc ci kanam Sëñ Abdu Lahat fecc fecc fecc fecc ba neen daal tay daal di toog Sëñ Abdu Lahat ne ko waaw diw lii nga def nii loo ci jiblu mu ne teg mu ne ko bis boo dee ba am ñetti fan ci bàmmeel di nga xam ne mu kàllaf du caaxaan waaye waa jooju ma gis mu tëdd ci suuf di wala xaaj ci yëqu di wala xaaj ci tëgg ñaari bool dóor ci suuf mel ni ku daanoo ay gàngiri wallaahi boo demee ba ci sa bàmmeel ba toog fa ñetti fan ba sa làmmiñu fees sa gémmiñ gi dell sa biir bi wër la juróom ñaari yoon ngirum néwi di nga xam ne mu kàllaf lu nekk ci ay caaxaan ànd ak nit ki nag du tax nga bëgg ne lépp lum la dugal nga dugg ca loolu munta nekk man Cheikh Gueye Gandigal maay wax ak yéen amut ku am maqaama ci àddina mbaa nga am bayre wala nga am coow luñ lay coow ba tax ngay digle lu islam di tere lu dul dinaa la joxoñ ne la lii ngay digle islam da koy tere bu yeboo nga atte ma ab terroriste bu nga atte ma ab islamiste bu yeboo nga atte ma lu la yàlla la yàlla yoore waaye su boobaa itam ma def li suñ tubaa rek waaye daal ànd ci ndigal yàlla daal laa nangu ak ànd ci bàyyi tere yàlla waaye kilifa gu jiite mbooloo tey digle tere yàlla ah boo ca boolee nag tere digal yàlla léegi nga doon kilifa ak seytaane il faut ñu waxante dëgg ma ne bëgg du tere seet yoon lépp looy wut te wutoo ko ci diine soo ko amee doo ko am doo ko yor ci diine wallahi lesi laa ilaa ilaa lépp looy ut te utoo ko ci diine soo ko amee doo ko am ci diine Sénégal nag yor ngeen ñaar jikko yoo xam ne fekk bàyyiwu leen ko du ngeen arrivé Sénégal su ngeen bëggee da ngeen di dof Sénégal su ngeen bañee da ngeen di dof su ngeen bëggee nit seen ak mbëggeel day dem ba egg ci ngeen nit ki sañ naa def lu yàllay tere su ngeen bëggee nit seen mbëggeel day dem ba egg ci ngeen ne kii kay wàlliw la su bëggee nit seen mbëggeel dem ba ci ngeen ne kii kay ab yonent la su ngeen bëggee nit seen mbëgg day dem ba egg ci ngeen ne kii kay yàlla su ngeen bëggee sax seen mbëgg day dem ba egg ci ngeen ne kii sax moo moo supérieur yàlla gis ngeen Mao Setoum dafa mujjoon doon yàlla fa siin ñi di ko jaamu ngir bëgg gu ko gaa yi bëgg fii fi Sénégal nag duñ fi mën a am maaw settim boo xam ne dañ koy jaamu nañu bàyyi bu kilifa diglee lu dëppoowut ak lislaam ñuy wax ne lii dëppoowut ak islaam ngeen di dal ci ñun di ñu xas bu ngee boo ngeen xas nu si boo ngeen ŋàññi béboo lu leen neex ngeen def ñu ko nun fi nu nekk duñ fi jóg tey duñ fi jóg suba ummatan wasatan laa ifrata wala tafrit foofu la ñuy nekk duñ fi jóge ba mukk ci central bi la nekk du ñu dem ci gauche ba mu ëpp du ñu dem ci droit ba mu ëpp yaa ngi dégg min tawbatin qudimat xawfin rajan maahu iftaaru uslin dawaaman bil xanaa atali suñ tubaa wax xaw fuk rajaa u duñ ci jóge mukk du ñu ragal yàlla ba egg ci bàyyi ak jaamu yàlla ngir defen dañuy dem safara waaye nag du ñu yaakaar yàlla ba egg ci defuk mooy yàlla bàyyi ak jaamu defen dañuy dem aljanna loolu nag mu ngi leen di bëgg a dal topp nit ki wóolu ko ba egg ci bu la diglee lu bu la digalee lu yàllay tere rek eh, nga ne ah ginnaaw diw la sañ naa koo def loolu dal nañu ci Serigne Touba ñu bëgg ko yóbbu ba egg fu mu eggul bëgg koo duural lu mu waxul bëgg a saxal loo xam ne lii moom ci boppam woote ko ngir bëgg a topp suñuy bànneex loolu ci wàllu al wàllu diine la mu ngi ñu bëgg a dalit ci yeneen nit muy nekk ci réew mi waaj naa la xamal ne bu la seytaane jayee baloo digle ñu def ko ba tax ngay digle lu yàlla santaanewul soo dee di di nga layeeg sa borom yaay kan yow yaay kan ba ba sañu ko soo bëggee foo joxoñ jant fenk fa soo xëyee joxoñal ci penku bi Cheikh Guédé képp ku mu àndal dina ànd ak yow fekk yaa ngi jaar ci yoon soo bëggee jaar ci ñàll nag dina la ne fii nga jaar aw ñal la nañu respecté sacré bi nañ ko respecté boo demee ca Casamance di nga fa fekk lu ñuy wax bois sacré bois sacré boobee lañ fay tere ña fa dëkk ñi ma wuñ koo def doonte gëm nañu yàlla te bois sacré du diine ay xërim la kon nañu sacrel Touba nañu sacrel Tivaouane nañu sacrel Ndiassane nañu sacrel Cenaba nañu sacrel Medina Baye nañu sacrel Ndayba Niassène këri diine yi nga xam ne moom la diine samp nañ leen ko warmaal su fekkee warma ji munta daj réew mi kapitam nañ leen ko warmaal waaye képp kuy xotti ormay këli diine yooyu te ne diine ngay woote léegi ma ne la yow mii ak seytaane ngay woote ndax amoo ma xamam sax bi du la ko wax loolu moo fi bàyyi bis bu moo ko bàyyee dee duur nag sax su ngeen moo ko doon def lu tee ma wax li nekk ci man bu ngeen may rey li nekk ci man laay wax su ngeen may xas li nekk ci man laay wax su ngeen ànd ak man ci loolu ci loolu laa nekk su ngeen àndut ak man ci loolu ci loolu laa nekk te loolu kenn mënu ma ci jëli man mënumaa boole sàngara ak lem du ko def mënumaa boole ak ciriñ ak ak seytaane du ko def te ku ko defit ma joxañ la kon jikko yi ñuy jàngale ci tasawuf ku ci nekk di nga tal leneen lu dul lu dul loolu islaam dafa am nu muy doxee lépp loo gis nit di ko def am na ci kum koy royee bu ñuy def bu président di def waxtaanam woowu muy def ci bu année bi jeexee ngir sabote ko loolu ku ko man di def ci imam Khomeini nga ko royee imam Khomeini moo njëkk a joxe ndigal ne bu caa bi dee def discours annuel na ngeen ko sabote waaye imam Khomeini day ba mu koy def waxul ne na jël ay ndënd di ko tëgg waxul ne na ngeen jël ay bool di ko tëgg dafa wax ne bu saa bi dee def discours annuel te gis nga saa daa wàcce woon armée bi ci terrain bi de ku génn dee bu jàppee nit da koy takk ci diggante ñaari wata takk loxo yi ci wata takk tànk yi ci wata oto bi jëm nii oto bi jëm ne ñu tiiroo ko mu def ñaari ŋaal saa bi demoon na ba egg ci loolu day jàpp ay nit di leen tëral di jaareele ay chars ko combat ci seen kaw ngir lan ngir ngir rek bëgg a régler Iran seen yu mu ko neexee te mënu koo woon a am mais taxul woon nag imam Khomeini joxe ndigal ci muy def li yàllay tere tëggam dënd moom benn place rek la ko yàlla may muñ ko may ci ak céet lu dul ak céet tëggam dënd des ko ci def te ndënd bi ñuy tëgg ci ak céet moo di li ñuy wax abul jalajil abul jalajil nag boo ko doon xool ci Sénégal moo di ak xiin ak xiin mooy ndënd mu yaatu gàtt teñ foor benn ñu beneen ba ca des loolu moo di ak xiin xiin abul jalajil moom la islam maye ñu tëggu ko te itam céet ba céet la maye ñu tëgg ko te itam aw jigéen a koy tëgg di woy te itam fañ koy tëjee ay góor du ko fekkee ay góor du ko seetaan il faut ñu teg l'islam comme ni ko yonent bi rëddee si yoboo ñu ne ay islamiste ngeen si yoboo ñu ne ay terroriste ngeen ay radical ngeen ay fondamental lu neex waaye na ko wax waaye ñun dañuy wax islam comme ni ko yonent bi rëddee boo gisee bu yëngutu amee ci réew mi ba tribunal di àtte ma ne bu doon ni islam nangam bu doon ni islam nangam loolu xam naa ne neexul sax nag borom réew mi neexul ñuy àtte waaye nag sëñ bi da ngaa war a nekk nag ci li nga gëm rek te nga bàyyi sax gi ci li mu gëm baa nga def ko ni ñeneen ñi rek nga rey ko mu dee ma yem fa waaye du tee moom la mu gëm loolu lay wax ndax làq sa ngëm di ànd ci loo gëmu ak naa fekk la man Cheikh Gueye du ma ànd ak Macky Sall ci loo xam ne gëmuma ko man Cheikh Gueye du ma ànd ak Ousmane Sonko ci loo xam ne gëmuma ko ndax ñoom dañoo tuut ci loolu seen maqaama éggul ci ma ak ñoom ci lu ma gëmul ndax yàlla yoon yónni wulante bi ñu ay yonent la may ànd ak ñoom mooy la diine nangu lay ànd ak ñoom la diine nanguwul nag ànduma ci ñoom tey ànduma ci ñoom ëllëg kenn mënut tax ma ànd ci ñoom tey damay woote na bu ci kenn ànd ndax loolu moo ma war digle mbaax tere mbon loolu moo ma war tëgg ak fecc ak jaxase góor ñi ak jigéen ñi islam da koy tere tëgg nag ak fecc maye na ko ci benn jamono ci benn bis ci benn ci yenn circonstance mooy bu ñu takkee jabar ca bis ba léegi mën nañoo sar xolle moo di saqaar it mën nañoo sar xolle mën na jëw tëgg benn ndënd tëgg jigéen a koy tëgg ñuy woy te fa ñu koy tëggee di ko woy góor di ko fekkee bu cër ga ca tasee jeex na waaye feneen fu ñuy woote góor ñi jigéen ña la jafa ñuy jaxasoo di tëgg ko fecc ku koy wootee ci ak seytaane gu weex tar nga nekk loolu mu sëx bi di koy wax mu leen nag ne lu neex waaye nag te boo wax ko sëx gi nga nekk ci saytaane wala nga nekk ci ñàkk xam boo nekkee ci ñàkk xam nag dañ lay xamal ba ba ngay xam xëy na itam nga di ko def ngir yow ci jëmmu bopp euh, am na loo bëgg te xamoo noo koy fooy jaar ba am ko mais su fekkee da ngaa am loo bëgg te xamoo xamuloo fooy jaar ba am ko da ngay gisee ak ñi xam fi ngay jaar ba am ko ñu wax leen ne jaar leen fii imam nii ba muy nekk àddina lii ñuy def ci Sénégal moom laa gis mu daa ko santaane ca Iran bu saa bi dee def discours annuel ñuy saboté man waxuma bu leen saboté de waxuma ko de saboté leen ba mu neex leen yoonu kenn nekku ci yoonu sax ngeen nekku ci ndax loolu seen droit la ndax ci biir pays démocratie la nekk waaye démocratie islamique dafa gën moo gën euh, euh, démocratie yëfër démocratie islamique nag nii la ko xamay ni defee woon bu saa bi daan euh, xutba xutbaam boobu muy xutba at annuel danaan wax ne da di génn ci mbedd yi di tudd yàlla allahu akbaru allahu akbaru waaye nag ah boo ko diglee fii dañu ne yaay Saddam yow yaa di yow yaa di Usama Ben ah, na loolu la xëy na xëy na boo ko diglee fii dañuy wax ne yow yaa Usama Ben Laden te day tey loolu day yàq day dox sa digg ak li nga bëgg xëy na xëy na loolu la waaye nag lii dem moom la imaam Khomeini santaane woon ñu tudd yàlla bañ demee dema dem ba saa bi wàcce armée bi ci suuf ne képp ku fi yàlla ci mbedd bi su ma dee def discours ani yéen na ngeen ko jàpp rey ko imaam Khomeini ne ko dugg leen seen i kër ngeen tëj ko ngeen jël seen i baaful ngeen teg ko ci seen kaw teraat yi ngeen ubbi ko ba mu sees ngeen di awantoo di tudd yàlla ñi tudd yàlla Iran gépp di wiir saabir yi muy wax kenn du ko dégg loolu amoon na waaye nag imaam Khomeini waxutoon na ngeen wàcc ci mbedd mi gone yi góor yi jigéen ñi ànd ñuy tëgg ay mboole ci ndënd di jaxasoo système bi ni nga ko defee moom nga war a changé waaye def gi moom mën naa nekk mais ni nga ko defee moom nga war a changé soo ko changé rek da ngay noppalu wala boog nga jox ñeneen ñu la dimbale ci loolu ñoo xam ne ñoo yore mbir moomu ndax yow mënu ko yore waaye boo ko yoree te di ko doxalee nii tamit nag ah, ñi gëm islam ñoom dañ lay wax ne lii ngay doxal islam doxalu ko nii maanaam saboté président ci bu dee def discours annuel am day mën naa nekk ci kaw su fekkente ni yow gëmoo la muy woote waaye nag nga boole ca jaxasi góor nañ ci julli ñuy tëgg bool it nag loolu islam d'accord ci moom il faut lañ koy wax mu leer islam d'accord ci moom il faut lañ koy wax mu leer islam d'accord ci moom mu leer ndax diggante boobu nga xam ne fi lañ tàmbalee tëgg bool yi mais booba julli gu ñu kee te bi nit ñi julli gee ko noonu kenn dégluwu leen léegi loolu lu ñu war a setantal la bëgg a bañ ñu déglu kuy wax jërul nit ñi tëgg ay bool ñuy nodd te heure boobu gone yi tàmbalee tëgg ay bool fii ci mbuur mooy buñ noddee tamit seen dëgg ñu gee buñ noddee gee ñu ngi tëgg ay bool dégluwuñu nit ñi est-ce que loolu jar na ko est bëgg a saboté kuy wax jar na xotti orma yàlla xotti orma yàlla nag mun te weet bilaal di nodd ca jàkka ja gone yi nekk ca mbedd ma di tëgg ay bool di saboté ka sar ak sarxo sarxo ka sarxolle nañ euh, nañu góorlu daal nañ fexe ba seet ni ñu orienté suñu bopp liñ bëgg mën nañ koo am te lu ñu def lu yàlla santaanewul li coow li bari bari bari bari bari bari bari bari carte ci hernie te taxaw bañ bañ laa sàcc mooy tax nga daaneel président waaye tëgg ay bool tax nga daaneel ko loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg naa nit ñi dégg ko nañu warmal mun Muntaxa mi ci Tuubaa te bañ koo naqaral nañu warmal mun Muntaxa mi ci Tuubaa te bañ koo naqaral ndax naqaral mun Muntaxa ci boppam naqaral Sëñ Tuubaa la te bépp murit boo xam ne jox nañ la ndigal nga dugg oto nga àbb sa bool ñu la foo jëm nga ne Mbàkke Bawol loo fay defi dama fay tëgg ji lan nga fay tëgg ji Sëñ Muntaxa day këram tëgg Tuubaa kon maa ngi dem tëgg yi Mbàkke Bawol est-ce que départ goo ngay départ Tuubaa di tëgg Mbàkke Bawol neex na Sëñ Tuubaa neexu ko ndax neex na si ñu mu taqaa mi mi fi toogal suñ tuba neexu ko ndax kon yow tu yow vrai murid saadix man soo wàllisee maa lay suub man waaye mënoo wàlli si nga suub ma du ma ko def soo wàllisee maa lay soppi man waaye doo wàlli si soppi ma du ma ko def fu la jooju laa am yoonu murid yi ku ma ci fekk da ngay ànd ak man ci rythme bi Sëriñ Tuubaa woote mënoo ko ngay ni sa rythme bopp ili sa façon murit te nga ba ma ci bi Sëriñ Tuubaa woote waaye pour na nga influencé ma man ba ma bàyyi woote gi Sëriñ Tuubaa woote nga suub ma ci sa wootee bopp loolu moom duma ko def te képp ku koy defit doo ci am ndam ba mukk ndax biraasu man baarasa nii biraasu man yu baarisul baari sa man yaa ngi dégg biraasu man baarisa nii biraasu man yu baarisul muntaqimal baarisa man léewoog sëñ Bamba léewoog yàlla la ci daanu rek ngay mujj te képp kuy influencé waa Touba ne leen jóge leen Touba dem Mbàkke Bawol ngeen def fa li sëñ Touba tere Touba boo ko waxee boo ko waxut yaa ngi léewaatoog sëñ Bamba te dina la yenn ror ci suuf li man nag samay wax jalub muus la neexut a dégg nag waaye jalub muus la rek neexut a dégg képp kuy defee nii say bon ko sens képp kuy influencé waa Touba ci ñuy def lu suñ Touba tere donte da nga leen di wax ne génn leen Touba defi ko feneen dikkit li nga nekk du du taalibe du ak murit dañ koy wax mu leer naññ amut ku yàlla bind ngay dox ci kaw suuf ak koo doon koo xam ne dëgg ak sax gi jomb na la bu loo ko naree wax daf la koy wax laaj bi nag maa ngi leen koy jox Touba bëgguñu fi mu tëgg nan jóge Touba dem Mbàkke Bawol tëgg fa dellu si ndax neex na suñ Touba ndax ndax na si Muntaxa mi fi toog ndax boobu si Cheikh Matilé Cheikh Modou Cheikh Matilé di nekk neexoon na ko ndax neexoon na sëñ Baara ndax neexoon na sëñ sëñ sëñ Salim ndax neexoon na sëñ Abdou Khadir ndax neexoon na sëñ Abdoulaye ndax neexoon na sëñ Fallou Mbacké ndax neexoon na Cheikh Moustapha Mbacké ndax neexoon na sëñ Bamba mi woote yoon wi mais jëf ji neexul yàlla neexul yonent bi neexul kenn ci yi murit yi képp ku koy wootee dangaa def attention ci li ngay wootee dangaa war a def ci attention ci li ngay woote kat dañ la koy wax dañ la koy wax du yàq nag dara ci jàppale la du yàq dara ci ñaanal la du yàq dara ci dimbale la du yàq dara ci bu wote jotee ñu wateel la ndax fii ñu toll nii moom euh, ku falu faluwaat daal moom sañoo wateel sañoo faluwaat kooku moom na leen ràññee loolu moom dara luñ ci mas dara luñ ci maslaa amu ci ni ñu ñàkkee ànd ci wootem tëgg diggante Mbàkke Tuuba loolu lañ ñàkk ànde ci toog ñaari mandat toogaat amul ku am maqaama moomu foofu la ñu war a waxee nit ñi tëgg wàcce wut buur mën na koo saboteer nag ab organisation waaye mënu koo wàcce xam nga luy wàcce buur sànni carte ci hernie bi mu fees dell ñu wàññi mu nga ëppale ko mu wàcc nga yéeg loolu kese la yal na ci jub yéen daal teelu ci sellal waxtaan wi nag du tax ñu ubbi groupe bi mukk déedéet waxtaan wi du tax ñu ubbi groupe bi mukk nit ñi nekk fi di werante déedéet li ma gëm laa wax yaa ngi dégg ku mu neex nga ubbi sa groupe wax la nga gëm te bul ma woo